mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci bi ak réew mi FM dalee nag jàmm ci seen euh, émission démb ak tay ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi euh, jamono yi nag xam ngeen ne politique moo gën a fës ci actualité bi euh, moo tax itam dañuy méngoog actualité li ñuy waxtaanee itam tey mu ëlëm sénégalais yu bëri mooy élection présidentielle bi ñu jëm naka la nar a demee élection boobu tey bëri ay incertitude ñu bëri xamaguñu ndax dinañ bokkam duñ bokk pour ne pas dire kenn xamagul kan mooy bokk ak ku dul bokk est-ce que élection présidentielle mës na demee nii ci Sénégal diggante euh, peut-être Abdou Diouf euh, ba ci président Macky Sall jaar ci président Abdoulaye Wade lu ñuy waxtaanee la mais daanu waxtaanee itam euh, lii président Macky Sall wax. keroog ne du bokk ci élection présidentielle ban jàngat la ñu ci mën a def est-ce que tam décision bu ñu ko mën a méngaleel jot na am ci histoire politique bu Sénégal loolu yëpp dañ ciy waxtaan euh, tey ak euh, ki jiite woon cadre libéraux yu parti démocratique sénégalais àndandoo woon justement ak président Macky Sall ci biir PDS mais àndandoo aussi ak président Abdoulaye Wade lu yàgg yàgg. Euh, Maître Cheikh Tidiane Touré ñu ngi lay nuyu di la dalalaat jàmm ci démb ak tey plateau bi moom dootoo fi gan macha allah <laughs> léegi tey nga bokk ci consultant Euh, kon maa ngi leen di gërëm di rafetlu lii nga xamante ne nii mooy seen liggéey parce que rajo ngeen boo xamante ne nii yàgg naa leen a suivre donc euh, di leen ñaanal yow mi nga xamante ne nii sa liggéey rafet na te nekk na <coughs> leeral boo xamante ne nii Sénégal yi soxla nañ ko kon boog euh, comme li ngeen ko xamee rek maay Cheikh Tidiane Touré nekk nag koo xamante ne nii. Euh, yàgg na ci parti bi nekk PDS euh, ñoom Macky Sall yëpp suñu loxo la ñaw coordination des cadres yëpp may jiite ko ñu liggéey liggéey bu am solo ba finalement ñu dem ba yàlla nag mooy tànn buur mooy tànn président bi yàlla tànnee Macky Sall Ablaye Wade daf ñu wax ñu ñëpp ñu ñëw jàppale ko. Mm. ah ñu bàyyi lépp man sax nekkoon naa conseil spécial bi mu nekkee premier ministre. léegi nag euh, ñuy dem ba nga xamante ne nii jubbootul ak Ablaye Wade. dëgg la parce que Ablaye Wade aussi ku jafe la. man mii wax a yéen sax en 98 xuloo woon nañ fi xuloo bu metti ba maak Ousmane Ngom ñu organiser woon parti libéral. mais ki nga xamante ni moo tax ñu mooy Pape Diop ak Macky Sall mii ñoo ma jël si parce que. Ablaye Wade tenait beaucoup à ce que ñu ñëw confirmer léegi nag yi ba mu nekkee président de la République. Mhm. ak xuloo bi mu def mu nekk loo xamante ne nii euh, bettu ñu ñu xam ne yàlla rek mooy tànn. Mhm. waaye nag loolu ba mu amee tamit rafetlu nañ ko waaye bi ñu lay Wade ne ñu ñëw jàppale ko bi ñu ñëwee di ko jàppale ñu def lu ñu war a def mais ñu sentir daal day Macky ma ñu xamoon. Mhm. ak Macky mii bokkul léegi nag loolu moo tax. ba mu xamante ni nag li tas àndandoo ba mu jël doomu Ablaye Wade tëj tëj ay nit yoo xamante ne nii <clears throat> euh, ñoo bokkoon di kii mu nekk loo xamante ne nii lu lu ñu naqari la woon man foofu laa découragé bàyyi politique retiré wu politique ubbi sama cabinet parce que loolu nag lu am solo la parce que képp koo xamante ne nii bëgg nga jariñ Sénégal rek mu nekk xale am na loo xamante ne nii il faut impérativement nga am jàng xam-xam am métier ba finalement ngay dugg ci loolu man ba ma bàyyee politique bi dama ñëw ubbi sama cabinet mm. nekk ordre des experts ci lay yëngu boobu ba léegi waaye nag Sénégal moo ñu gën a lépp mm. lépp loo xamante ni mu ngi am problème wala quelque chose bu ñu ma consulter dinaa ci wax sama sama sama sama xalaat daal. loolu moo ci nekk waaw. loolu moo tax tey ñu ñëw taataan sa xalaat ci tolluwaay réew mi tolluwaay politique bi mais élection présidentielle bi ñu dëkkmal pour méngale situation bi ñu dund tey ak li fi amoon démb surtout ci biir libéraux yi parce que ba léegi yéen a fi nekk xëy na ñaanu président Wade bi dafay waaj a nangu libéraux yi toog tamit <laughs> comme socialiste yi def au moins cinquante euh, ni nga xamee président Macky Sall nga dalal ko ci biir cadre euh, libéraux yi. Euh, ndax tey décision bi mu jël ne du bokk ci élection présidentielle bu 2024 bett na la ndax ñëpp dañ doon ne dafa bëgg a bokk jéego yi mu doon teg yépp ñu ne jéego yi nar a bokk la est-ce que yow daf la bett wala bettu la. mën man nag euh, bett na ma. li tax mu bett ma euh, parce que Macky bi nga xamante ne nii ay àndandoom ci parti bi képp ku yëkkati sabaat rek ne. Euh, troisième candidature bi d'accord ci mu mu mu mu dàq la wala mu sàkkal la pexe ah mu jaaxal nu ñun yëpp. te ku wax leneen du la def dara. te ku wax leneen de l'autre côté non seulement du la wax dara. mais le contraire da lay defal promotion. loolu nag bu amee même bu waxul sax junj. Euh, day na borom xel loolu daal mooy li nga xamante ne nii euh, jaaxal nañu. Mm. bon. léegi nag li ma regretté rek <coughs> mooy dafa toog ba finalement euh, yëngatu bu metti am Sénégal deux mille vingt ak deux mille vingt trois bii ñu ne. début juin ba début juin bakken yu bari rotti loolu lu ma regretté la ah bakken yi ci rot nag mënoon nañ ko épargner. parce que lii mu wax tey bu ko teeloon a wax. Mm. kon situation bi dina nekk neneen lu dul lii. loolu regretté nañ ko trop trop trop te it am na loo xamante ne nii seetlu naa ko Macky bi nga xamante ne woon moo nekkoon cadre PDS ñu nekk di évoluer ñu nekk ensemble mu nekk sama rakk ak yooyu bi mu nekkee président du même Macky bi moo ne. Hmm. déedéet dafa dafa soppi complètement ah parce que en fin de compte ñëpp ñu doon ànd ak moom d'une manière ou am na loo xamante ne nii euh, doxale na ko te baaxul te ki ma gën a regretté. mooy Alioune Badara Cissé muy nekk koo xamante ne nii ku am xel la te kooku sax xalaatoon nañu tey ji bu fi nekkoon kon tey ji euh, problème du am parce que moo koy remplacer automatiquement yàlla jël na ko mu nekk nag loo xamante ne nii regretté nañ ko trop waaye daal jaaxle naa ci Macky trop trop trop parce que la ma xamoon ak ni mu meloon ak euh, ni ñu demee woon parce que nit koo xamante ne nii ba nga xamante ni amagoo soxna ngeen xamante ngay dem ba mu takk soxna sa kanam ñu dem ci mariage baak yépp di Mariam Faye Sall doomam ji mu taawloo suñu loxo yi lañ ko uuf mu mu nekk ñun bu ñu amee ñooy bokk bu ñu ñàkkee ñooy bokk ku mel noonu bu ñëwee yàlla def ko président de la république mu commencé nag ah loo xamante ne nii euh, euh, bi muy jël nguur gi déjà Euh, Abdoulaye Wade am na nu mu doxalee woon sur le plan économique sur le plan euh, des infrastructures nga xam ne joué nañ ci un rôle important Macky Sall n'a fait que continuer cela avec des incidences. loolu tam mooy état la continuité. voilà état mooy continuité mais xam nga tey jii bu ñuy waxee autoroute bi li ñuy wax rek mooy Macky Sall li mu jé autoroute bi ni mu ko doxalee. ak yu bare bare ak pont yi mu def et tout ce qui s'ensuit. Mm. lépp loo xamante ne nii ki def na ko rek fekkoon nañ ñu xalaatoon ko surtout man mi doon def infrastructure projet bi nga xamante ne nii moo doon euh, tali dakaar yeeg pont yeeg yëpp dossier boobu travaux piblique laa nekkoon maa ko ko jox. Hmm. ne lii nag mooy tax ma ànd ak yow. loolu nag bi ko lay Wade continuer ba finalement nguuram jeex ki Sall jël relais bi loolu la continuer kon bokk loolu lu am solo la. kon yéen ñàkk kóllëre gi daal ngeen ko meree mais vision wu président Wade mottali na ko. waaw mottali na ko mottali na ko mais nag euh, coût bi daf ma jaaxal. parce que ah, jë njëg bi. Ah. que terre bi bi nga xamante ne nii mu ngi koy def dafa remplacer euh, terre bi ak euh, train bleu ak rail yoo xamante à moom la ñu xalaatoon ne moom lay def hmm. moom mu indi terre bi. mais terre bi aussi bi mu ko indee lu baax la mais coût bi ci boppam boo ko comparé yeneen dëkk yi nombre de mm. kilomètres yooyu liñ ciy dépensé nekk na loo xam ne gàllankoor bu mag a mag a mag la. Mm. loolu mooy problème bi. lii nga xamante ne ni signé na ko ak Eiffage ak yooyu pour affaire euh, autoroute beeg yooyu. Mm. coût de coût yi nekk na loo xamante ni lu kéemaane la. kon boog loolu. vraiment bien vrai que continuer na li Ablaye waat doon def. Mhm. mais coût yi nekk na loo xamante ne nii vraiment gàllankoor na bu baax ci développement Sénégal waaw. yaa ngi wax ne dafa ñëw soppeeku mais euh, pourtant diggante bi defoon ngeen fi cercle des amis de Macky Sall lan moo dox ci diggante bi ba euh, ngeen tàqalikoo ba ngeen jàpp ne xëy na. dafa changé jël yoonu boppam. bi nga xamante ni Ablaye Wade daf ñëw jox instruction man ma nekk membre com mu jox ñu instruction daal di ne kenn ci ñun falu na kon boog dañu bëggoon li ngeen di def instruction dem leen jàppale ko loolu moo tax ñu dajaloo euh, liggéey liggéey bu am solo créer li nga xam ne mooy cercle des amis de Macky Sall te bañ koy créer euh, mu ngi may fàttali sax Mahmoud Saleh ma ñu dajeeloon jàkkaarloo jot nañ fa xuloo parce que dafa wax ma ne ko yow libéral nga mais le fait que communiste yi ñëw ànd ak yow aussi nekk na loo xam ne force bu am doole Mahmoud Saleh ne li tax ngay wax communiste yi li tax nga leen di bàyyi ainsi ñu xuloo ko xuloo bu metti bon kon boog kooku presque gàllankoor na kon suñu diggante ak Macky Sall kon boog entourage Macky Sall dañu influencer Macky Sall ba Macky Sall ma ñu xamoon ak bi ci des bokkatul loolu mooy li nga xamante ni mooy inconvénient bi mais toujours est ku amoon mentor bu mel ni Ablaye Wade liggéey ak moom xam programme am boo ñëwee remplacer ko non seulement yàlla da lay baaxee lu bari. mooy mhm. boo amee xel tuuti rek di lépp loo yóotu rek incha allah yàlla dina ko rafetal. Mhm. pour ñëwaat ci laaj bu njëkk bi euh, lan nga jàpp ne kon moo tax président Macky Sall ñëw ba fii dellu ginnaaw ci candidature bi bu fekkente ni danga gëmoon ne dafa naroon a bokk. waaw man li ma ko analyser mooy li xew. conséquences yi xew bi nga xew nii nu mu tëdd xëccoo bi ak xeexoo bi ak nombre de morts yi. Mm. ba pare jàkkaarloo ko benn organisation boo xamante ne nii euh, ku mel ni Ousmane Sonko nekk ci nekk koo xamante ne nii également jot naa ko xam. Mm. parce que ni ma ko xamee mooy bi nga xamante ni Macky daf ko dàq. ba mu ko dàqee comme comme fi mu nekkoon impo dafa ñëw ne day intégrer ordre des experts ñëw déposer dossier am yàlla def na man commission bi nga xam ñoo dajale woon di étudier dossier am ci laa bokk te j'étais favorable xuloo naa fa bu baax pour que ñu jox ko parce que nit ki doo ko dàq fa mu doon liggéey mm. mu bëgg a intégrer ordre des experts te loi bi jox na ko en tant que ancien inspecteur des impôts mm. ñu bëgg ko faagaagal ma ne loolu il n'en est pas question mm. kon bokk loolu nekk na loo xamante ne nii choqué na trop d'une manière ou d'une autre bon euh, opposition bi nga xamante ne nii am na nag ba finalement ñuy dem di dem di dem ba euh, élection yi am bi ñu gis kat ni ku mel ni opposition bi jël nañu maire yu bari donc Ziguinchor ah ñuy dem ba local euh, législative yi ñëw ñu presque yem kooku nekk na loo xamante ne nii bu fekkoon Macky amoon na lecture wala mu libroon defe naa ne foofu dina changer démarche li tax nag changé wul. kon ba foofu changé wul woon. déedéet li tax changé wul euh, ñi nga xamante ni ñoo doon ñoo nekkoon ak moom ñi nga xamante ni nii ñoo doon évoluer ak moom ci parti PDS et ñoom ñëpp daf leen daf leen daf leen daf leen daf leen faaletu leen. dem am ak affaire ay façon yoo xamante ne nii ñoo ko dugal nag ci situation bi moo tax changement bi am d'une manière ou d'une autre de l'autre côté opposition bi xeex xeex bu solo bu am doole ah ci biir xeex boobu nag mu def lan mu def loo xamante ne nii ku jàpp ku mel ni Ousmane ko ñun ay technicien lañu yoo xamante ne nii en dehors de la politique dafa am yeneen information même ñun suñu bopp sax mën nañ def ay sondage hmm. ah ma daal bi ma gisee loolu ma yónnee message Macky Sall ko ñu ngi lay jàppale mais ni ngay doxalee am na problème parce que man maa jiite cercle des amis de Macky Sall mais ni ma la gis nga xëy doxale ñu bari ñu ngi indi ay problème hmm. te ñu ngi démissionné kon il faut nga changer mu boole ma ak ndeysaan nem si yàlla Abdourahmane Ndiaye. Abdourahmane Ndiaye recevoir ma te bi ma recevoir daf ma ni grand yow ku oyof nga. la fait que nga nangu ma recevoir te yaa doon sama kilifa sur toute la ligne nekk na lu am solo ma ne ko loolu amul benn importance. Mm-hmm. na nga fexe rek ba lii ma lay wax nga wax ko Macky Sall sa gëm moo la yónnee ainsi de suite. Mm-hmm. ma wax ko li nga xamante ni mooy gàllankoor bi nekk nag man mënatuma téye nit ñi. parce que yaa ngi def loo xamante ni c'est contraire ak la amoon. kon boog bu fekkee ça continue euh, dafay am lu may doxale tontuwuma dégluwuma 2017 ma envoyé sama lettre de démission mu ngi ci Facebook bi mën naa la ko yónnee. Mm-hmm. léegi à partir de maintenant euh, di nga nekk sama rak waaye àndatuma yow ci politique sur toute nekk loo xamante ne nii. ma gëm ko ñu bari nag xaw nañ ma ci mere ma xool nag ku mel ni Ousmane Sonko ak li ko def yëpp ak li nga xamante ne nii moom lay vivre ak comportement bi nga xamante ne nii am na ko di di di évoluer ci jàmm ak salaam ba bu ñu dajee euh, ci suñu réunion experts yi ak ni mu mel ma xool ko ba xool ko daal di ne kii kat nekk na koo xamante ni am na njariñ ëllëg te buñ ko jàppalee am naa yaakaar dina évoluer donc Macky Sall moo taxoon yàlla ak ni ñu mel ñu jàppale ko waaye ba mu changé nag ñun ay politiciens lañ. naka lañ xool landerneau politique yëpp ñu séentu ci gis koo xamante ne nii xale bu am fayda la expert la comme ñun. te am na loo xamante ni mën na ko changer Sénégal. loolu mooy li nga xamante ni hmm. moo tax ñu. ñu changer complètement mën a mm. ànd ak moom. ok mun nañ jàpp ne itam loola yëpp nga wax ci Ousmane Sonko bokk na ci li tax président Macky Sall deltu ginnaaw parce que xam na ne ki mu jàkkaar lool ak am ak liñ jot a ci réew mi comme yëngu-yëngu ak doole euh, mën naa indi leneen. moo tax mu dellu ginnaaw. loolu loolu loolu moo tax mu dellu ginnaaw. amul ne dafa def de calcul la def. Mm. nee na dafa sàmm kàddoom ak yooyu. sàmm kàddu bi dafa nekk kàddu boo xam ne yow boo jógee daal di ne nii lay doxalee. li nga njëkk a def ay nit dee ci nga defaat ay xaw ma ñaata nit génn ci àddina là automatiquement bu fekkee ni euh, am nga xel dëgg dangay xoolaat sa bopp waaye xoolaat boppam bi nag dafa am lu ko lal sur le plan international ak euh, tubaab boobu ñëwee wax wan baranko la xaw ma ak menace yi mu def yooyu yëpp dafa nekk pression bu am solo boo xamante ni nii euh, indil na ko difficulté yu rëy rëy ma koy xamal ni nag euh, nguur goo gis day jeex man magam laa waaye sama kilifa la mooy président de la république dama koy xamal ni di ko yëgal ni ba mu topp ñi nga xamante ne nii institut yow xalaatoo woon même ñun ñi sax nga nekk président de la république léegi nekk nga président la république ubbil carte yi ñëpp bokk nga superviser ko yëpp day tax nga nekk euh, nit koo xamante ne nii même bu fekkee am nga ay erreur yoo def sax comportement boobu dina tax. ñu ñu fàtte ko. Mm. waaye jël ki nga xamante ni mooy principal opposant dem këram bloqué ko tëj ko toj otoom instrumentaliser la justice yooyu yëpp dafa nekk jaru ko kon boog man Cheikh Tidiane Touré xam nga ni euh, xam nga mu baax. Mm. ni ñu xamante ainsi te yàgg nañu. te bu fekkee ni ñi nga xamante ni nii euh, wekk na la ak ni ñu mel dañu bëgg a début boo gis finalité bi nekk lu baax male lay ñaan loolu bu ci dugg def nga un premier pas boo xamante ne nii rafet na li ci des rek mooy nga bàyyi képp koo xamante am na chance le problème ne se pose Sénégal yi nag mën nañ lépp ba mu def sa yonte te jii boo fekkoon nii da nga bàyyi ba élection yi ñëw keneen ñëw. képp ku dal sa kaw Sénégal yi dinañ dinañ dal sa kaw. Ah, moom d'ailleurs mel na ni dutewu ci ndax nee na bu bu paree fii lay toog ci réew mi du dem fenn kiy falu itam bu mu jox ko. naka rafetal nag. Mm. parce que ni Abdoulaye Wade demee moom na demee noonu. Mm. te aussi na xam ne ñun tamit bu ñu sañoon euh, libéraux yi ñooy continuer mm. mais ay affaire socialiste ak libéral ak yooyu sax doxatul. ñun suñu beneen mentalité parce que li ma gis fii. jeunesse bi ma gis ak xale yi ma gis. nekk nañu beneen niveau. boo xamante ni ça n'a rien à voir ak ay libéraux ñoom seen c'est pas la même conception. Mm-hmm. expérience tax moo tax ma la koy wax. Mm-hmm. kon boog dama bëggoon yooyu yëpp nga dugal ko ci sa calcul. tourner le dos à tous ces gens là yi nga xam ñu ngi doon jooy naan li ñuy jooy yëpp mooy mm-hmm. seen intérêt la ñu bëgg. xam nga man soxlaa lu ma la daa. Mm. parce que benn am na amitié. Mm. ñaar yàlla jàppale na ma te xam nga ni euh, jàppale na ma sur la ligne parce que. Euh, ba ba yëf ya méttee. Hmm. lu bari doon na dox suñu diggante te loolu it nekk na loo xamante ne nii gis naa ko te vivre naa ko. Hmm. sa jabar également bi nga koy jël mu nekk xale bu ndaw nekk di évoluer ak yow jàppale la ba nga toll ba fii. Hmm. am naa yaakaar ni ak mbooloo mi nu mu mënti bari ak xel yi nu mu mënti kii am na loo xam xamante ni yéenewuma ko d'une manière du tout waaye nag lu jeex jeex na mm-hmm. naka comprendre loolu jàmm na ñooy d'accord élection présidentielle boobu justement ci la ñuy ñëw xool ndax nii mu demee nii and euh, ak incertitude maanaam kenn xamul kuy bokk ak kudul bokk est-ce que Sénégal mus na euh, traverser situation bu mel nii ci jamonoy président Abdou Diouf ba ngeen nekkee ci opposition beeg président Euh, élection daan na ñëw seen ñàkk bokkul leer leen wala leeru leen ngeen naan ndax danañu bokkam duñ bokk ndax danañu bloquem déet diggante Ablaye Wade euh, Macky Sall ba ci Abdou Diouf euh, élection présidentielle mas naa ñàkk wóoree nii ci réew mi. lii moom mësul am. Hmm. ab Abdou Diouf ak Ablaye Wade fu nekk jaar nañ fa. waxante bu nekk wax na wax nañ hmm. lu nekk def nañ ko man mi nga xamante ni maa yoroon cadre yi. li muy njëkk a def man la njëkk jàpp lu xew mu jàpp ma parce que nee na cadre yi bu ñu amee fii Cheikh Touré tax ba tax na mu nekk loo xamante ne nii euh, élection la yoo xamante mais euh, dama remarqué quelque chose parce que en fin de compte euh, Abdou Diouf daawul loo mënti wax am na niveau boo xam ne dafa àgg waaye koo xamante ne nii boo waxee mu mu jàpp la tëj la ci ay wax na ma ak institut loolu mësul am te loolu bu fa Ablaye Wade doon def kon am naa yaakaar ni du nekk président de la république léegi nag loolu am na élection yi moom li wóor te wóor lii mësul am sëga mësul am nag na def loo xamante ne nii way wi day rafet à tous les niveaux parce que say sëtëng lay déglu te àddina dafa gudd tànk kon boog man je pense que ni tey jii li Abdou Diouf doon def ak yow ni nga doon wax Ablaye Wade di ko ko wax Abdou ab euh, Ablaye Wade daan ko wax Abdou Diouf te suñu empêché kenn mu dem élection wala ñu tëj parce que tey jii six mois moo des ci élection yi kenn xamul kuy dem ak kenn du wala ndax élection dina am ndax am na ñuy wax waxi report ah voilà léegi man dama yaakaar ni report boobu dafa nekk loo xamante ne nii buñ ko dugalee ci bopp nit yi yëpp du jur jàmm parce que fi mu ne Sénégal lépp a ngi dox. institution yaa ngi dox. Mhm. assemblée nationale a ngi dox. nit ñaa ngi liggéey metti na wala kii. Mhm. tabaski bi ñëw na metti na wala ñëpp a ngi tabaski nit ñaa ngi dugg di génn koon boog amul benn inconvénient boo xamante ne nii mën na tax ñu def report. Mhm. léegi nag le fait que mu faagaagal ay opposants ne leen du ngeen dem. kooku dootul affaire Ousmane Sonko ah, kooku peuple bi la. parce que le peuple que j'ai vu ça n'a rien à ñun bañu nekkee xale di xeex peuple bi dañu nekk ci yeneen situation yoo xamante nii dafa metti man boo gisee may liggéey ba tey mais am na ay jeunes yoo yu bari yi liggéey ak man maa ngi lay xamal leen am na benn jour euh, ñu amoon benn émission mu amoon benn jeune boo xamante ni dafa ñëw euh, jeune boobu Euh, dafa ñëw ah déglu ma ne ma président looy wax ma ne ko ci kii bi laay wax mu ne ma ah président daal vraiment ainsi de suite mais kooku expert la stagiaire dafa jóge ci cabinet bi di dem di expertiser benn bateau ñu gis ko ci yoon wi jàpp ko yóbbu ko ba tey ma nga prison mm-hmm. wallahi mu ngi tudd Seydou Mané koo xamante ni ça n'a rien à nekk na xale boo xam tey jii prison lañ ko dugal teewul chaque mois ma fay salaire am chaque mois ñu ñu koy jàppale jël nañu avocat jël na ñu lépp mais ba tey ñu arrêté ko te kooku dossier yi yónnee naa leen ko nee naa leen kii c'est un expert stagiaire dafa amoon bateau bu mu doon expertiser dem romb fa nit ña doon nekk xeex ba mu metti ñu jàpp ko nekk ci nga bokk bopp ba tey mënul mënul fexe ba ba génne ko. kon daal réew mi jaxasoo na bëri na injustice métti na ba mag ñi sax mënatuñoo toog. <laughs> ñoo ngi liggéey te ñëpp la dal nag. Eh, waaw parce que yi ñoo ñoo changé. ñoo changé complètement kon boog loolu mooy li nga xamee moo ci nekk. Mm-hmm. na xalaat rek li mu doon wax Abdoulaye Wade parce que nee na ko dama lay delloo ca palais ba. dama lay lii dama lay laa te Abdoulaye Wade mosu ko empêché. Mm. léegi nag ku wax sax ni affaire marché sax naan palais sax ñu yóbbu la prison. Mm. kooku rafetul. Mm. kon boobu nañu nañu nañu sagal ñun ñi nga xamante ne nii xam nañ ko. te nekk nañu ay libéraux mu jàppale ñu pour que rafetal yëf yi pour que Sénégal ku ñëw rek mën a mën a mën a mën a gouverner. mu nekk ci jàmm ak salaam. Mm. surtout yàlla lim ñu may. Mm. alors euh, politique bi tey ni mu tëggoo nii euh, daanaka lépp soppaliku benn reconfiguration quand moom moo am tey mag ñi wala parti classique yi mel ni ñuy ñuy fay ñuy jeexal ndax tey loo wax jeunes yi ne changement renouveau génération bu bees la ñu soxla et loolu aussi moom la ñu nemmeeku ci seen doxalin yëpp euh, noo gisee kon ëllëgu parti yu mel ni peut-être ay PDS ay PS. Euh, tout la classe politique classique là foo noo gisee seen ëllëg ci wàll euh, politique yi Sénégal. waaw c'est-à-dire euh, ñun bi ñuy politique li taxoon ñu doon xeex parce que parti socialiste dafa ñëw doon doxal doxal boo xam ne rafetul ñu xeex ba njële ko fi léegi nag Macky Sall li ñëw. xam naa am na ay accords yoo xam ne def na ko avec l'extérieur la France ak yooyu yooyu. mais tey jii bu ñu demee ba nga xamante ne nii xale yi ci seen bopp amatuñu xëy yoratuñu dara ñun ñi nga xam ne waroon nañu retraité dem noppalu ji ñooy continuer di liggéey pour yor kër yi mais xam nga loolu dafa nekk loo xamante ne nii rafetul léegi nag jeunesse boobu ma gis benn euh, am nañu xel euh, jàng nañu te nag bul foog ni ki jàngul français euh, xamul dara ñii di jàng arab ak ñii analyser tey jii boo demee jaaykatu caaf bi hmm. ah théorie bi mu lay tenir da ngay waaru ci yàlla nit ñi fu ñu xamee yëf yi lu ko def hmm. rajo yi bari na comme seen rajo yi lu ko def mail yaa ngi daw hmm. whatsapp yaa ngi daw information yi mu ngi daw sur toute la ligne donc tout le monde est donc am naa yaakaar ni ñun daal mën nañu servir de conseiller waaye ñenn ñi moom amatuñ seen place ci langue gi. <laughs> amatuñ suñu place ci langue gi tey jii man ak loo ma mënti wax. Mm. xanaa yow balaa mu lay kii nga mën a dox wala nga kii sax lay lay wuti. <laughs> donc loolu laay ñaanal. ñi nga xamante ne ni suñu maas la nekk ci langue gi et tout ça mën nañu nag servir de conseil. Mm. parce que mag mat na bàyyi ci réew. moo tax war ñu noppi loolu moo tax may wax. Mm. parce que waxuma parce que. dama bëgg wax wala dama bëgg feeñ wala damay wut succès wala damay ah. lu may toppatoo ci loolu. Mm-hmm. la ma doon def def naa ko. kon bokk jeunesse bi nekk na jeunesse boo xamante ni lu lu jar a xel lañ parce que bu ñu toogee bay jël mbënd mi di dem nekk ci dëkk bi di ainsi de suite même Turquie bi sax dégg naa xale yi lan leen fay woon ak Sénégal yi leen fay woon nekk na loo xam ne du ñaaw la ñoom nag xalaat nañu ni. seen dëkk bii ak li fi yàlla di indi ak ni mu fi def bu ñu toogee seen seen seen dëkk def politique boo xamante ne nii euh, politique la boo xam daf leen di suqali ñu mën a liggéey parce que géej gu am euh, kër dëkk bu am ndox dëkk bu am naaj dëkk bu am suuf bu baax am ay jeunesse yu baax ñooñu bu ñu toogee bay jéggaani yi kooku day nekk loo xamante ni du politique bu baax mm. kon boog jeunesse boobu lu jar bàyyi xel la te nag Macky Sall bu forcé am na yaakaar ni du am affaire ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko tëj nañ ko bloqué nañ ko kon peuple bi ci boppam ñooy ñooy ñàmpal loolu rek laa koy laa koy ñaan di ko xamal ni ko moom ma nga nekk ca Palem il est bien informé mais ñun one en contact avec la réalité et les difficultés. Mm. parce que les jeunes yi ñuy def nekk na loo xamante ne nii. Mm. dañ ko gis loolu mooy problème. effectivement alors mais noo gisee euh, cette façon là de faire de la politique bu bees bi tey ànd ak violence xaxarante président Abdou Diouf ak Ablaye Wade fu ne jaar nañ fa. loo ne waxante nañ ko mais quand même y avait des limites am na ay barrières yoo xam ne daawuñu ko jéggi mais tey euh, discours politique bi violent bu ñu wàccee ci mbedd mi di ko defante itam mu ànd ak violence ay bakkan di rot donte loolu du lu bees mais quand même ñëpp nangu nañu ne tey ni ñuy defee politique dafa dafa metti dafa dëgër dafa ànd ak violence. mag mu mel ni yow ànd ak Abdoulaye Wade pendant des années fekkee lu bari ci histoire politique gu Sénégal naka nga jàngatee situation. situation boobu. Euh, dafa nekk loo xamante ne nii dama ci am kersa am ci euh, kersa goo xamante ne nii euh, boo analyser xale yi tax ñuy comporté wu de seen manière. Hmm. yow da naan lii li tax mu am xale yi nag ngeen gis ñoom ñooy wàcc sur le terrain hmm. waaye ñi nga xamante ne nii ñu ngi seen kër yor seen carte toog. nekk ci ay difficultés ñoo gën a bareeti ñooñu mënuñu xeex mënuñu dem mënuñu dikk waaye ña nga toog ak seen euh, seen seen déception mu nekk déception boo xamante ne nii lu doy. mais problème bi c'est d'abord les acteurs politiques yenn saa yi ñuy waxante ak yi ñuy def. waaw ah, génnee xale yi ci mbedd mi yooyu am na ñu koy ñaawlu yow est-ce que comprendre nga situation. xam nga yëf yi sax du génne ay xale ci mbedd. Hmm. parce que xam nga yëf yi rek nu mu demee. yow par exemple boo jógee euh, gis situation boo xamante ni am na nga gis ci ñoom ay nit yoo xam ne ñuy jóg di saaga di wax lu dul dëgg di di comporter wu di traité te ñooñu kenn du leen wax dara ñu bàyyi leen de l'autre côté nag ku yëngu rek ñu jël la tëj la mais comment naka lañ mën a expliquer sept cent personnes xaw ma six cent cinquante personnes nekk ci prison yi ñëpp di ay opposants te ñëpp ay opposants la ñu qu'est-ce que kon injustice boobu. Hmm. moo tax ki ci am occasion rek da ngay dépasser sax analyse hmm. économique et tout cela hmm. tu deviens agressif. cette agression là c'est créé par le système bi ñuy vivre ak injustice bi nga xamante ni moom la ñuy vivre ak ku yëngu ñu tëj. boole ak météo ay jamono. voilà ak météo ay jamono. voilà la la l'enjeu tel qui se présente. bon léegi nag yow boo demee di déglu débat yi. parce que man nag foofu laa la fonke parce que yow di nga interview yi nit mais bu waxee lu mu dul wax lu mu warul wax automatiquement da nga koy corriger ba nga xamante ne nii kooku kuy ñëw it nga koy interviewé dina xam di muy wax te du indi insolence et tout ce qui s'ensuit parce que da nga ki ngay nekkal parce que boo ñëwee di in di interview yi nit da koy jox respect ngeen discuter ci ay programme discuter ci lu am fayda mais bu fekkee day wax nga nekk yow ainsi de suite jaar fu ne automatiquement da ngay waaru le problème se pose. voilà loolu moo ci nekk. différence bi ci am rek. ñàkk wegante bi ci langue politique bi. moo waral. voilà euh, loolu loolu moo ko moo ko indi. moo bi alors ñu ñëw léegi nag ci retrouvailles famille libérale loola lu ngeen yàgg wax la yéen libéraux yi bëgg vraiment ñi soqeekoo ci keppaaru président Abdoulaye Wade yépp continuer di ànd nekkaat benn donte am na ñu bari ñoo xam ne dem nañu ber seeni daara mais euh, liñ naan tant qu'il via a espoir am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi ngoy ci retrouvailles euh, de la famille libérale est-ce que yaa ngi gëm yooyu retrouvailles ba léegi. bon retrouvailles ñi nga xamante ni acteur principaux lañu ñooñu ñëpp atteindre nañu âge yu retraite ñu ci baree bari ay mag lañu léegi ay xale yu ndaw ñoo fi ne di évoluer te xale yooyu amuñu formation politique amul école du parti amul yooyu yëpp nekku ci te dangay ngay dem ba finalement ñu ne la yow euh, ñun ay libéraux lañu mais il faut que ñu adapté ce libéralisme la avec les réalités africaines parce que doo jël ay ay ay ay libéraux yoo xamante ñu ngi dëkk ci ñu ngi jóge dëkk yu am solo yu riche yi. Hmm. nga ñëw ne même libéralisme yi da ngay dugal fii wala quelque chose comme ci réew mu amul dara. amul dara hmm. c' est pas la même chose. donc man conception yooyu moo moo taxawatul. communiste la socialiste la capitaliste loolu dafa nekk loo xamante ne. c' est dépassé c' par rapport à à, à la situation actuelle. ba tax na nag. Euh, euh, les jeunes que ni ma ko gisee. ba finalement euh, li may yaakaar nit ci lañ war a gën a liggéey mooy benn ñu ñu fexe ba mën a moom seen bopp am xam-xam boo xamante ne nii war nañ ko wuti di jàng pour ëllëg ak si biir bu ñu duggee ci politique bi même bu bi jeexee sax dina am loo xamante ni dinañ ko mën a def waaye bu fekkee ni yow defoo loolu yëpp. xëy suba ñu dugal ki nga nekk député dem ba ci député bi ay at la jeex yow boo paree nooy mujje am na député yu bari yoo xamante ni ak ñeneen ministre yu bari yoo xamante ne nii amuñu tey jii boo leen gisee beneen affaire lay doon ñu nekk ci situation yoo xamante ni difficile na métti na te te te doy na waar ce qui veut dire que kon boog euh, euh, muy libéraux yi muy ñeneen yi famille libérale et tout ça c'est vrai connaissance bi am nañ mais tey jii man boo ma woowee ne ma Cheikh Touré dañuy élargir famille libérale mais conception bi ma am ci famille libérale sur le plan général mais spécifiquement ci domaine bi nga xam ne mën naa ko dinaa ci indi contribution bu fekkee c'est à l'encontre des intérêts nag ñi nga xamante ni ñooñu ñoom ñooñu gouverner automatiquement day poser problème mm. loolu mooy li ci nekk mais je trouve que euh, Euh, comme ni ñu doon wax rek euh, réunification de la famille libérale et tout ça ay théorie la yoo xamante ne nii da ngay waaru Karim Wade mii yàgg na wax ni moom fi mu toll euh, comment dirais-je bëggul am affaire ak les amis de ses de son père mooy ñun yi nga xam ne ay sa moroom papam la ñu nekkoon léegi mënul composer te ñun loolu la mës di wax. ah moo taxoon ñu ne mu indi sax génération. Euh, du concret ba mu demee ba loolu. xaw a puus gars yi mu demee ba loolu échoué nag léegi bañ na ko ba finalement moom ci boppam xale la waaye xam na ni tey jii bu demee ci élection yi te papam jàppalewu ko. te àndul ak PDS te àndul ak PDS te jàppalewuñ ko du mën a dem kon boog yëf yi. li ci nekk ba nekk ci ak nu ñu mënti même su suñ doon raam sax dañuy dem voté ji. Mm. mais nag bopp baa ngi fi. Mm-hmm. am nañu ay conception et tout ce qui s'ensuit. Mm. bon ce qui veut dire que les jeunes ñoo nekk en activité dañ leen di pousse nag. Mm. ñuy évoluer sur la ligne. mais il arrive des moments yoo xamante il faut nga encadrer leen. donc il faut impérativement euh, ñi nga xamante ni bokk nañu jëmukaay effectivement war ñu am nu ñu mën a doxalee. ba àndandoo parce que connaissance de base bi kenn mënu ko remplacer. effectivement mais nag. Euh, bu fekkee nee nga kii ancien communiste la du ma wax ak moom et tout ce qui s'ensuit division la boo xam ne jaru ko. Hmm. ñu ñëpp ay africain lañu ñu ci bari ay jullit lañu ñii ay catholique lañu. am na nu ñu dara bu amee tey jii ci dëkk bi ngénte am wala tabaski tout ça boo fa demee ñëpp ngay daje. Hmm. kon boog conception boobu dañu war a développer pour que effectivement. ñëpp gis ci seen bopp. Mm. loolu nag. Ah, alors am na ñoo xam ne gëm nañu lool retrouvaille euh, famille libérale ne itam lu am njariñ la yow en tant que libéral euh, xëy na di nga ñu mën a wax bu loolu sotti woon tey ban njariñ lay amal Sénégal aussi est-ce que libéro yëpp buñ dajaloowee benn sayu xam-xam lay doon wala mën-mën wala njàng wala lan daal euh, la mën a doon comme njariñ pour la peuple sénégalais. waaw loolu. il faut que théorie ba ñu doon def les libéraux ak Ablaye Wade ba mu koy théoriser ak technique yi mu indi woon ak sur le plan économique et tout cela loolu dafa dépassé yeneen lu bees moo am te loolu pour nag nit ñi mën kii d'accord il faut d'abord bu ñu dajee mu am le programme commun programme boo xamante nii dañ koy def de telle sorte que euh, dañ koy bind euh, analyser ko xool naka lañ koy adapté avec nos réalités africaines en ce moment on pourra évoluer te tey jii ni ma gisee situation bi aussi faut pas se rek au Sénégal parce que tey jii l'ouverture c'est au niveau de l'Afrique mm. il faut que Sénégal lu mu mën bu bokkee bu ñu dajaloo état yu bari ñu dajaloo liggéey ci ba am seen monnaie bopp ba am seen conception boobu bokkandoo ñuy xàccee xàcceendoo di dóorandoo kon le problème se pose pas mais Sénégal tey ak lu mu développé bu fekkee tu as un voisin boo xam ne ñu ngay xeex di évoluer wala Sénégal rek dem di waxtaan ak ay union européenne ak yooyu du sotti kon boog il faut tendre vers une unification des des des états africains ñu jéem a am un programme di évoluer mais loolu nag balaa muy am sur le plan interne il faut qu'on s'organise en conséquence am un programme boo xamante ni dinañu permettre ñu kii ko ñu présenter ko comment dirais-je peuple bi et le problème se pose pas te maa ngi lay waxal dara rek Macky Sall nii peut-être euh, am na loo xam ne réussir na ko. Hmm. ah li mu réussir mooy sur le plan infrastructure wax nañ ko mais nee naa la lii yàq loolu rek mooy. Euh, coût yi nekk na loo xamante ne nii c'est xaw ma na kañ lañ koy rentabiliser. Hmm. loolu mooy situation bu bi nga xamante ne nii jaaxal na ma trop. Hmm. mais j'ai l'impression que aujourd'hui balaa ngay balaa ngay xam sa bopp nga vivre une situation boo xamante ne nii gis nga ko hmm. waaye nag ci biir situation boobu am na des priorités yoo xamante ne nii am naa yaakaar il faut ñu teg ci tànk parce que tey jii. jeunesse bi ëllëg ñoo ñu yor mais cette jeunesse la il faut que ñu am une certaine formation. le système scolaire bi nga xam ne ñu ngi koy def ak xale yi ni ñuy jàngee kooku dañ ko war a repenser waat. ba finalement dina adapté wu avec nos réalités par exemple kenn di jàng ba bac boo ko ne wiiseel ma kii sax du ko mën mais kooku bu demee ba troisième mu dem. xam par exemple papam nekk menuisier mu ñëw di ko jàppale ci vacances yi mais dina ko permettre moom am une certaine formation technique. pourtant état commencé na sax euh, formation métier ngay jàng di di jàngale métier. waaw loolu am na ko mais boo xoolee sur l' ensemble. la population. Ah boo neew la ci ñi koy am hmm. te loolu moo yor ëllëg stabilité dëkk bi. xale bu départ dem ba nga xamante ne nii euh, xam na ni mu ngi wuti bac hmm. bu duggee ba troisième jot mu mën a def soudure walla mu mën a réparer oto wala mu def mu am maçonnerie et tout cela nekk na loo xamante comme ça mm. il faut que ci biir formation boobu parallèlement ah mu am effectivement xale yi mën a am métier di mën a dem te loolu Ablaye Wade théorisé woon na ko mm. mais à un moment donné il y a eu des difficultés mm. mais je pense que loolu lañu ñu war a atteler te buñ ci atelier incha allah defe naa fileeg vingt cinq ans je ne sais pas xale yi nga xam ne ñu dooru juddu tey a yor seen wax ci dialogue bi dialogue bi itam actualité la euh, dialogue yàgg naa am ci Sénégal Abdou Diouf ak Ablaye Wade daan nañu dialogué ba mu dugg ci gouvernement bi. Mm-hmm. yàgg tuuti xëy na mu rocceekuwaat nekkaat ci làng gi di wujjeek moom. mais euh, dialogue bi mujjee am dañ ne dil la. Euh, dañ cee waxtaanee ay mbir yoo xam ne xëy na mooy pour may ñeneen ñu bokk mën a seppi ñeneen ñi est-ce que dialogue yi daan am yépp impression wu dil ngeen ci daan am surtout yéen temps bi ngeen nekkee ci ci ci opposition bi walla daal dialogue moom lu am solo la ci réew. waaw dialogue moom li tax mu am euh, difficulté. Mm. Euh, dañu commencé woon benn dialogue en mm. mu amoon. defe naa le général moo ko doon jiite mu nekk dialogue boo xamante ne nii dak dem nañu ba finalement mm-hmm. am na point yoo xam ne d'accord nañ fi ak point de désaccord mm-hmm. mooy genre bulletin unique ak euh, la personne qui doit organiser les élections mm-hmm. yooyu yëpp mu nekk désaccord kon boog dialogue bi point de désaccord yooyu la ñu waroon euh, comment dirais-je prendre en charge xool ndax am na entente entente boobu. buñ ci d'accordé dialogue bi nekk lu définitif. loolu moo ci nekk parce que njëkkoon nañ def dialogue. d'accord nañ ci ay douze points. loolu dañ koy teg de côté xam ne c'est un acquis léegi nag ñu xool ci li nga xamante ne nii d'accord nañ ci li tax doxul. Hmm. loolu bu amee dina nekk loo xamante lu am solo la. ñi nga xamante ni ñëwuñu ci dialogue bi li ñu wax mooy wax nañu def nañ benn dialogue et amul dara duñ ci appliqué. te nag dialogue aussi boo koy def il faut que nga pacifier l' espace politique. Hmm. boo jëlee ay nit ay xale tëj plus de sept cent personnes. Hmm. ba pare di woo leader bi nekk kañ ñu dialogue. c' leader bi sax moom ci boppam nekk sous le coup d' une condamnation. Ah, naka ngay waxtaanee. est ce que situation dialogue tam mës na demee noonu. loolu mënul demee noonu. Ah. donc dañu mosoo leen dund genre yi ak Abdou Diouf mosul poñe Ablaye Wade am fu mu ko téye ba noppi ne ko kaa ñu waxtaan. jamais jamais te ba ñu discuter ba ñu paree dafa ne ci point yi nga xam ne defoon nañ ko. loolu moo indi alternance yi. waaye nag bu fekkee ne ah, yow même code Kéba sax presque. mu ngoog ko amee le code consensuel de 92. voilà mais boo nee dialogue yow mu am la ñuy waxante woon ci dialogue yi. nga ne di ko appliqué ba pare ñuy dialogue ñu ne la lii nga ne ko lii du mu ci accepté. il faut une personnalité boo xam ne mooy organiser mooy euh, superviser élection yi. Mm. ci la Ablaye Wade accepté bu jël un certain. Euh, un ministre chargé des élections remplacer Ousmane Ngom def ko mais yii Macky Sall nen du def loolu ci biir loolu kon lan la ñuy dialogué bo deux personnes yi nga xamante ne nii empêché woon nañ leen ñu dem élection muy Khalifa Sall ak euh, comment dirais-je Karim Wade ces personnes là c'est vrai seen partie ñëw na léegi nee nañu dañ leen di Euh, dem assemblée nationale ñu jëm leen élargir d'une manière ou d'une autre bon c'est une bonne chose mais de l'autre côté kii nga xamante ni sondage yëpp jox nañ ko popularité boo xamante ni kenn am ko ñu ne ko yow doo bokk dañ lay tëj parce que affaire yu ñàkk fayda yoo xam ne moom ñële ay milliards lañ leen demandé kii xuloo la ak benn jigéen ku nekk di sosalante te loolu yàgg dafay am ñu ne kon doo dem kooku day nekk loo xamante ne nii même ñoom F24 bu demoon ci dialogue ba dañ naan nii li ñu li ñu li ñu xalaat ak li ñu def baaxul te loolu peuple bi la ñu amal affaire mm-hmm. organisation bu ne muy Macky sàll di ñoom euh, F24 bu ñu defee erreur peuple bi la ñuy te li wërte wóor mooy engagement yi ñu jël yépp ku mel ni Ousmane Sonko te jii bu nekkoon président de la République mu jël pouvoir bi def la contraire ci li mu doon wax doole ji ci peuple bi la ñëw li ñu def Macky Sall la ñuy def euh, la ñuy def kii loolu moo am léegi situation bi moom kay da ngay wax leen appliquer ko mën a avancer automatiquement ñëpp fekk la ci mais defoo ko foog ni di nga mën nax i jeunesse bi ma gis ce n'est plus la même chose ils vont dañ leen taxaw daal di xool naka la kii loolu mooy situation bi dialogue man en quelque sorte lii doon problème bi rek waroon na libérer njiddeti na yi def de telle sorte que point yi nga xamante ni nii d'accordoon nañ ci ñu continuer ko et yi nga xamante d'accord ci ay bulletin unique yooyu yëpp ñu xool naka lañ koy dijjantee daal di proposition pour man sax bu jógoon rek daal di ne tous les points là d'accord nañ ci et tout ça génne benn arrêté rek def ko dootu soxlaati dialogue parce que ñëpp dañuy ànd ak moom loolu mooy li nga xamante ne nii man yaakaar naa ko mais dialogue en quelque sorte nous sommes en lande ci ay dialogue en permanence mais euh, bii moom ni ko doxale day nekk loo xam ne nii euh, nit ñi duñ ci sawar daal. Hmm. foofu la ñuy jeexalee waxtaan bi. waaw Me Cheikh Tidiane Touré bàyyi la rek nga tàggoo ak euh, auditeurs yi ñu doon déglu. waaw kon lu mel nii bu amee ak ni ñu mel ci politique bi ak suñu ñu mënuñu noppi. ah di remercier nag réew mi FM par l'intermédiaire de madame Fatou Thiam. di identifier parce que dama koy déglu souvent. li nga xamante ne nii ay information lu leer la te bu fekkee ni yaa ngi bëgg a dérailler it dina am nu mu lay wax ak yow. <laughs> ku ku ku yàlla na la yàlla jàppale. amiin ah di la xamal ni également ñaanaloon naa leen ne leen fii ngeen toll. Mhm. yàlla na yàlla def ngeen dépassé ko. waaw. am seen i télévision seen yëpp mm. ba yow mi sax nga am say télévision yooyu yëpp lañu yaakaar ak yooyu <laughs> di di rafet ah, télé bi da ñëw na télé bi tàq na télé bi ñëw na ah, waaw waaw Rewmi TV ñëw na eh wax nga dëgg kon boog kon ñaan bi nangu na macha allah <laughs> alhamdulilah day gën a jëm kanam rek waaw incha day gën a jëm kanam mm. parce que en fin de compte mm-hmm. euh, at yi ma am mm. euh, xale bu ndaw ñëw toog ak man di waxtaan ak man di ma poser ay questions réflexion ki nu ma doon sentiment bi ma ciy am. Mm. dafa fort. parce que démb ak tey yéen la fi nekkal. parce que xam nañu ne maître Mbaye Jacques yàlla na ko yàlla yërëm dafa ko doon mu ne ma Fatou man danga may dundal ak ku mel ni Ousmane Sène Bale moom itam ko yàlla yërëm. mu ne ah, dundal. parce que boo ñëwee dañuy laaj. ça nous permet ñu fàttaliku li ñu dundoon démb. aussi démb mooy suñu seetu ci la ñu mën a xool pour xam fan la ñu jëm. donc ñu ngeen soxla la ñu vraiment di leen laaj démb li xewoon na naka la demee woon naka ngeen defoon ba dépassé telle situation loolu moo tax a jug démb ak tey et ñu ngi lay gërëm ci disponibilité bi gërëm mag ñi nga xam ne aussi saa yum ma leen fëggee ñu ubbil ma seen buntu. Ah ma leen di laaj lu ne mais wax dëgg yàlla ñuy sawar toujours ci di tontu ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf kon daal euh, loolu la ñu kontaan. Mm-hmm. te euh, ñu mel ni ñun. Mm-hmm. mënuñu jàkkaarloog yow nga ñuy interviewé. Mm-hmm. ñoo lay wax loo xam ne du dëgg. ëllëg ak si biir du ma la mën a gis. parce que am na loo xamante ni nag ak lu ñu mënti mel nag. dafa am loo xamante ne nii. mais bu ñu gisee suñu moroomu sët. suñu moroomu doom ñëw jàkkaarloog yow di la poser loo mën a def rek mooy wax dëgg. <laughs> te vaar dafa xew. <laughs> xale yi dañuy vaar macha allah jërëjëf. yàlla na yàlla jàppale. amiin amiin Touré te incha allah léppay baax. amiin ci topp waay. moo nekkoon président des cadres libéraux yu PDS. yàgg na lool ànd ak président Abdoulaye Wade ni mu koy waxee moo dalal président Macky Sall. Euh, ci biir cadres libéraux yi. moo ko ci dugal donc euh, kooku bu ñëwee tey di ko laaj ci taxawaay président Macky Sall tey réew mi ne ci loxoom muy waaj dem war ko ko wacc ci yeneen loxo ak yi xew yëpp yaakaar lu jaadu la ñu koy gërëm gërëm ñi doon topp démb ak tey yëpp ci réew mi FM ak ñu doon déglu ci réew mi euh, point com di leen dig daje beneen dimanche incha waxtaane leneen ak keneen gërëm jaawo jàllo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi yendu leen ak jàmm bon